kooba bi kooba baa kooba bi mi ngi yëngal xorom si xaw ma ceeb la xaw ma xorom xaw ma suuf géej boo xoolee kanam gi rek nag jarul laaj ba xam xarit encadrement staff ah ñoom ñëpp a ngi wër seen champion saay nag génn na génn na gaam léegi sànq dafa mel ni ku nekkoon stade mais léegi mi ngi ree léegi dellusi na xool leen ko noonu mi ngi noonu voilà mais ah, ñëpp a ko namoon tooyal na xabtaan bi eh, eh, nu mu tëddi eh, Boy Niang fonde gi gën ko tàngalaat ba mu tàng jër ba ku ko naan mu lakk la kii damay bañ mu ñëw jël kopp bi naan cin ni sax lay jël <laughs> cinu bi lay jël naan ko voilà léegi nag mi ngi avancé waat booy dikk dikkagul léegi ci beneen porte bi fii nii la fa war la war a duggee mi ngi foo nekk moom yàlla xam ne ne booy ñaa mook njaay rek si àll wallahi mënta daan njaay tin yàlla xam na loolu aujourd'hui il a décidé dafa leer foowewuñu ko suñu bakkan lañ ci gàll xam nga lam ji gars yi dañoo bëggoon yu salte yooyu lii lam ji lu mu laaj dañ koy def barke yàlla suñu bakkan lañ ci tay moo naa. ñu doon. yàlla dara mukk mukk du ma ko nangu. du ko nangu. amul lu mu jëral. du ma nangu jaay bakkan moom mukk yàlla. bu ko laajee man naa dee man. de ay ay mu. <laughs> boo ñaar du dara. am dara. mais bëgg ngeen bëgg ngeen saa mooy mbër bi xam ne dafa commencé par zéro. Hmm. ba yegg si fi mu yegg si nii. weesu si ginnaaw mais nag moo tax ñun bawol bawol yëpp. muy zone boole yëpp. waaye dafa tar bi wu làmb yëpp. keppaaru làmb. turandoo mbër turandoo mbër papa mbër. boole ñu reef nañu dégg ñun ci làmb la ñuy fuwee xamuñu fubal xamuñu dara làmb kese. maa xam ñun làmb dong làmb kese lépp loo xam ni daaw ñu ko def nag dañu ko def ci combat bi. grand looy lu leer. magu armée 2. armée 2 maa ko njëkk a génne reefaan mbapat ah. Ah, ah, ak kii nu mu doomu Zallo bi fii sa Zallo ah ñoom Nokia sama xarit waa na mu moom naan Nokia mu ngi fi nee naa ko na changé tour Nokia daa xeewi oh, Nokia daa xeewi na tudd iPhone oh. la <laughs> ah gis nga gars yi moom bu ñu dajee la ñuy waxtaan foo kafre bu weesoo làmb ji xam nga ay borom baax la ñu dañuy waxtaan yenn wuñ ko ah yenn wuñ ko def ko loo xamante ni mooy bu ñu dajee rek nay nice mais seen ngi si biir oto bi naa na magu armée 2 tey sa booy bi laa moo daan armée 2 man moom laa doon supporté de dama koy neexal <laughs> man armée combat bi mais mag ji daa mais mag ji na nga wàññil may ko tuuti mu njool waaw na nga wàññil benn kii rek mu yokk taay bi tuuti day ñëw am na fit mais aka waane aka waane booy boobu daa dooj de maga maga billaay day xool ngay def da dégg woloon leen intéressé la waaw bu baax ndax xam ngeen ne li ci làmb ji moom ak ni mu demee li ci bëri lu ci bëri nag daanaka jarul jarul wax ju bëri nañ liggéey rek te bàyyi lépp ci loxoy yàlla waaw nañu liggéey rek ngi liggéey ñëw rek li ci kanam raw li bët technicien mathématicien la. waaye te def kër la yor. nice. siyaar naa leen. te eh, naka bu yow. siyaar naa la namoon naa la. dama dama laa mere. yow sama waay nga yow yow yow la amel bërëb ma la fay man dama la am na mbokk mu ñëw ma dama laa kuul xam ne yow li ma war a fay fekk fay ma du ma tuut ak yow. billaay nag ma war a fay. barke Serigne Touba xam nga may fay. ab bientôt rek bu soob si ma a sot. ma daan ko yëngal. xam nga tafaale bu baax a baax du ma taabet. boo man maa la dig maa may xaalis bu bëri. loolu wax ko tey jàppale ko jàppale ko ci bi mu jëm pour mu am ndam te incha allah rabi dina am ndam lépp loo xam ne ñu ngi koy def pour am ndam rek ñu koy def te incha allah rabi yi dina dañ ko wone na koy wal na koy yemal géej waaye gama ko doon dugal Réfane ak Guédiawaye du ñu benn waaw mais ñun ay mag da ko war a sulu ko neexul Boy Niang na def ndànk rek sama waa ji Mame Maguette Boy na def ndànk rek Boy Niang man mënu ma daan man Boy Niang amul doole dafa tuuti mba day entraînement avant corona ba muy entraîné amul combat dafa sonn dafa sonn ci entraînement te joueur dina xam ne entraînement mooy dëgg parce que Seydina Mohamed waaw mais bëgg naa lu bëri nga yow. a bëgg nga sama waay nga maa la bëggal sama bopp. léegi dégg ngeen loolu fonde gi daf may jox daf may jox ne day wàcc rek dëgg la léegi oto bi avancé na ba ci kanam après ñu mu wàcc door a dugg fi nga xamante ni ñuy defee face to face bi gis nga gars yi wër waa Bawol bi yëpp wër nañ ko hyper encadré yeneen gox yëpp xatraay ni ñoo